jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokku yu 5 TV Sénégal jaa jëf ci teewlu bi. mbokk internet yu 5 TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bi lee maître dem ba Touré mi ngi rek wax jëm ci naataangoom greffier yi lee ñu dellu rekk seen bureau yi ngir nag daal di tàmbali liggéey bi lee mu ni nag li nga xam ni moo amoon jëm rek ci tribunal ba keroog biñ koy taxawal mu ni loolee neexu ko dara ginnaaw itam bi ñu ko jàppee rek ba daal di koy yóbbu mu àndu ci waaye nag xëy na amaana yoon day def liggéeyam ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci maître Tanor Diamé moom nag ndaw responsable Pastef la mu ngi wax nag kon jëm rekk ci maître Ngagne Demba Touré li nga xam ni daal na koy wax mu daal di koy dénk itam suñu naataango yi lee di laas ñu daal di koy xamle ci rek appel bi nga xam ni kon maître Ngagne Demba Touré def na ko ak maître Diamé jëm rek kon ni ñoom nañu dellu rek amal seen liggéey kon dinañu rek daal di saytu dossier bi bu baax a baax ci fàttali maître Ngagne Demba Touré jàppoon nañ ko kon ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février bi lee ginnaaw biñ ko toppee pour association de malfaiteurs ak itami rek day lëkkaloo ak entreprise terroriste ak kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko jagleel ko njiitu réew mi ba ci rek wàllu magistrature bile ginnaaw googee sax nag moom jàpp nañ ko bi mu jugee nag ca réewu rek Mali ginnaaw bi mu fa defee juróom benn weer ab mandat d'arrêt international la ñu tegoon ci kawam